أبراره ناجي mbokk téléspectateur Bichri TV ba tey yéen a ngi fii ci kër Soxna May Mbàkke Jamil ci màggalu Touba mu mel na tey nag dañ fee am ñoo xam ne dañoo indi liggéey bu am solo mu nekk ay tablo ndax ñu bëri jàpp nañ ne màggal gi bernde yi mooy lekk gi naan gi te bernde gi ku ne mën ngaa berne ci côté ba nga nekk mu mel ne dafa am ñu indi tableau yu am am solo mooy tableau yi ngay gis fii indi ko def ko àddiya mu mel ne day wane le côté multidimensionnel de Cheikh Amadou Bamba ndax ñu bëri dañuy focaliser wu sur le côté spirituel mel na ni sëñ Bamba fi nekk un homme de culture koo xam ne damay wax ne il est à la fois un philosophe un économiste loo jël rek moo ngi ci sëriñ Bamba am ku taxaw fii nag di salaamaaleykum mbokki téléspectateur Bichri TV ba tey yéen a fii ci kër Soxna May Mbacke Jamil ci màggal. salaamaaleykum euh, mbokk jullit yi salaamaaleykum mbokki taalibe yi comme ni ko soxna si waxee léegi rek lii yëpp day ñëw ci esprit màggal tuuba encore une fois di wone caractère multidimensionnel lu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke nataal yi ñu indi tey. suñu benn mbokk nasaraan bu nekk ba itali moo koy defar dañu toog di waxtaan mu xalaat ne moom lan la mën a def pour dugal loxoom ci màggalu Tuuba mu xool ci moom li mu mën ak liy mëninam mu defar nataal yi bii nataalu sëñ Saaliw la ay peinture la ak loxoom la ko defaree mu jëlal ko temps lool mu defar ko ak xol ak yéene jox ñu ko pour ñu indi ko fii bu ci nekk mu defar si ay pièces yoo xam ne unique la ba pare def ko ci série limitée tey nag ñu ñëwoon fii kër soxna May Jamil indil ko ko jox ko ko àddiya nataal yi comme ni ñu ko waxee sànq encore une fois day firndeel caractère multidimensionnel bu Cheikh Ahmadou Bamba ba nasaraan yi fa ñu toog seen dëkk di xool lan la ñu mën yokk pour mën ko dugal seen loxo même bu ñu ñëwul ñu am lu ñu yónnee dolli ko ci màggalu Tuuba mu nekk yokkute ci ñun ñëpp nekk njëriñ ci ñun ñëpp. jërëjëf sëñ Assane mu mel ne da nga ne da ngeen di dem ci kër kilifa yi yi nekk Touba yóbbu tableau yi jox leen ko àddiya xam nga kilifa yi bëri nañ torop mu bëggoon a xam nag yan kilifa ngeen ci ciblé. ndax dangeen ngeen a tànn kilifa yi ci gën a ràññeeku rek ngeen yóbbu ci tableau yi wala yan kilifa daal ngeen cible te itam nasaraan boobu ngeen wax ne moo moo dessiné photo yi bëggoon na ñoo xam lan moo ko inspiré ndax koo xam ne cosaanoowul Sénégal mën nañu ne cosaanoowul defar lu mel nii loo xam dafa respecté ku ci gis gi da nga yaakaar ne photo la nan la lan moo koy inspiré daal ba mu ba mu defar lii. ok jërëjëf soxna si donc euh, comme ni ma la ko waxee sànq rek euh, ñun dañu xool. surtout nasaraan bi moom dafa ne lan la mën a def pour dugal loxoom ci màggalu Touba mu xool ci mëninam mu ne dina defar ay tableau jox ñu ko pour bu ñu ñëwee ñu indi ko ci màggal bi pour kilifa diine yi nag ñun ay murit lañu képp ku sant Mbàkke rek képp ku kilifa diine rek bu ñu amee accès ci yow bu jot ci yow yombee rek li ñu mën a joxe addiya dinañ ko joxe moom nag li koy inspiré ñun ay murit lañu fépp fu ñu toog di waxtaan rek mbiru sëñ Touba moo ñu ñor ak lépp lu laal si njabootu sëñ Touba ak lépp lu laal si jumaa sëñ Touba donc si suñuy ay waxtaan daan nañ ko woon ay nataal am na yii mu defar ni yëpp dañ ko ko mës a may donc bi ñu tolloo si defar li mu génnee yi nga xam ne rek moo moo ko jege comme temps bi dafa xawoon a gàtt mu liggéey ci li nga xam ne moo nekkoon sous la donc ci loolu la jëlee. mais amul benn préférence par rapport ak lii ak lii maanaam lépp lu laal sëñ Touba rek lépp loo xam ne njabootu sëñ Touba la lépp loo xam ne liggéeyu sëñ Touba la rek buñ si mënee dugal suñu loxo dañ siy dugal suñu loxo waaw. jërëjëf sëñ Assane mais li nga xamante ne ay pièces uniques la nekk loo xam ne dañ ko limité aussi nekkul lu bari mu mel ne ku ci bëgg a am rek. ñun ñi nga xam ne ay profane nañ xëy na xam ñu mais ñi nga xam ne xam nañ technique gu peinture technique gu li ngeen di liggéey xam ne yéen doo leen ci ku ndaw ma bëggoon a xam ne ku ci bëgg a am nan lay def ba ba daal di jokkoo ak yéen. waaw d'accord mu toll nii euh, jërëjëf si laaj boobu parce que laaj boobu am na solo lool euh, tableau yi nga xam ne defar nañ ko comme li ma la wax sànq temps bi dafa xawoon a gàtt donc defar nañ si ay pièces unique la fi mu toll nii mais tamit en série limitée la. nombre bu nekk rek am na nombre lim boo xam ne moom lañ ci def donc ñi nga xam ne comme ni ma la ko waxee sànq jot nañu si ñoom dinañ leen ko jox keneen koo si bëgg koo xam ne bëgg na ci tamit bu jokkoo ak soxna May Jamil soxna May Jamil dina ko wax naka lañ mën a def ba am ji sëñ euh, Assane mu mel ne lii dafa nekk lu am solo mu mën ne mel ne lii day wane le côté multidimensionnel de Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ñu bëri dañuy jàpp ne sëñ tubaab bu ñu ko tuddee rek. le côté euh, spirituel la ñuy jàpp julli jàpp julli na ci géej gi mu mel ne ay kiraama yu def waaye lii nga xam ne nasaraan si ñu ngi koy def di ko wane ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lii nag mooy moo war a yéem ñun ñi nga xamante ne nañ ay murid lañ toog jéemuñu dara mën nañ ne defuñu dara ngir Serigne Touba mel ne ay nasaraan bu ñu jógee fële di liggéeyal Serigne Touba dafa war a nekk soññeente ci ñun war a nekk lu ñuy motiver bu baax a baax a baax. di ko jaajëfal bu baax di bu wax ne képp koo xam ne rek bëgg na ci tableau yi mën ngaa jokkoo soxna May Mbacke Jamil mu jox leen seen ay contact ngeen liggéey ak ñoom jërë ngeen jëf